chef du village du euh, Kelel Kontor di nuyu euh, commune Dendey guy gi yëpp nag euh, di leen wax ne am na mbégte tey ci mobilisation bu bi ngeen ma defal gannaaw bi loolu wee ñoo ngi sant ñi fi daje ñëpp nag chef du village yi responsable politique yi conseil municipal yi et cetera ak délégation yëpp daal sama message nag mooy tey jii laay ub sama meeting fii ci sama mairie di wax Sénégal na leen euh, commune Dendeye Guy gi bu bu ñëpp meloon moom président Macky Sall bu ko neexee mu xam ne dem na suba palais incha allah jàll na te dañuy wote incha allah dañuy wote quatre-vingt-dix-neuf pour cent su ma la cent tax ma ne cent pour cent mooy xëy na am na ay. ay ay délégation yoo xam ne dañ fi ñëw di fi recentré seen bureau di fi watee mais bu dul woon dañuy watee pour cent amul benn carte bu fi mooy Macky Sall bu dul APR lañu ñun waa APR lañu ku xam ku xam commune ak délégué ak nu mu conseil conseil ko dar xam ne commune Dendeye guy gi duñ commune boo xam ne bii dañ naan nii la ak naa la ñoom ñun pare nañ pare pour li li wërte wóor mooy que dimanche le 24 à 5 heures néew ma ne dañu ubbi bureau yi parce que yoon mayuñu ko waaye boo ñëwee ci pobel yi yor na ko danga xam ne Macky Sall jàll na premier tour incha allah loolu la ñu ñaan yàlla la ñu ñaan te incha yàlla dana ko dogal parce que ñun nag dañoo la ñuy wax mën a takku leen wala jonkan leen fekk na socceen moom jatul ba pare. ñun moom pare nañ pour formaliser président Macky Sall incha allah premier tour amul benn xel message bii laa noonu dama koy jàllale incha allah yéen la la monde entier ngeen di ko xool di ñu déglu incha allah ñu di ñu yaakaar incha allah premier tour wa salaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ana message boo xam ne nii moom ngay lancé seen mbër mi nga xam ne moom ngeen wax ne yéen di ngeen ko joxaat réew mi su su réew mi ana yan jàmbat yoo xam ne nii war na leen ko jàppale ci seen diwaan bi de. merci euh, message bi ma jàll suñu président mooy wax naa ko du benn yoon du ñaar toog nañ du benn yoon du ñaar. PUDC li ñu koy njëkk a laaj mooy PUDC na dugg ci commune Dendeye guy gi taal lamp yi fi war a tàkk dëkk yi amul woon courant yi amul woon ndox yi amul yoon surtout nag Daaru Xafoor Dendeye foofu moom dafa war a ñuul obligatoire dafa war a ñuul dafa war a ñuul Daaru Xafoor Dendeye dafa war a ñuul nañ ci man ak moom wax ko du benn yoon du ñaari yoon waa waxoon na ma sax insha allahu taala bala ñu ak élection na ñuul waaye xëy na nag yàlla moo ko dogalagul mais daal président li ma ne laasal mooy li si gën a fés mooy déndey guy gi na ñol école yi manqué na fi ba ba léegi ay mbaar ñi ngi fi am te du jaadootul ci Sénégal ñuy jàng ci ay mbaar am na ci euh, école yoo xam ne ñu ba léegi boo seetloo commune déndey guy gi ñaari école lañ fi miire mooy CM bi ak benn école guy gi mais école élémentaire yi fi ne yëpp benn lañ ci miirewul te yoon def na nag ñu miire ko non looloo ay xale ay xale yu ay xale yu doon fo rek la def ay mékontaan nekk seen kii boo ko seetloo xam ne sax boo gisee xam ne euh, maire àndu ci ñi ànd ak maire àndu ca parce que bi koy def sax dañ doon nëbbutu di ko def fa lañ leen sànd mari fekk takk leen jëlee fa ñu xam ne message ba jàllul ana lan xam ne nee nañ yéen da ngeen a sàcc élection yi ñooñu dañuy wax rek dañuy wax rek <laughs> xam nga nit bu fekkee dafay dem élection mënul sax am ay parrainage yu mat bu ko neexee mu yor laminam te olof olof Ndiaye mooy wax naan kuy waddoo lamin boo noppee rafle ñoom seen lamin la ñu di wax waaye ñun élection dañ koo liggéey ak askan wi jëfal askan wi ci wàllu bourse familiale yi et cetera ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon président li mu li mu euh, premier touram du sàcc élection da koo liggéey. nga xam mooy président de la république Macky Sall mu jëm Touba di moo di digal xalifa bi joxe digal pour taalibe voté non du joxe ndigal parce que moo seexee ñëpp moo moo jaboote waaye nag Macky Sall liggéey na ci Touba loo ko falaat deuxième mandat te nag coow li mu nag ku xamul xamul waaye ah comme lan fi ah, def mu si ko lim de tàmbale ci Ila Touba bi mooy boo jox ñee gis ko assainissement bi et cetera yeneen ak yeneen lancé na fi hôpital boo xam ne bii ay nangam milliards lay jar te commencé na ko. coalition Idy 2019 non bu Idy day wax rek Idy moom day wax Idy moom bugguma woon sax ngeen mu tudd ko sans parce que moom nitu finna la nitu saytaane la ko euh, bu leen fàtti na Idy bërki démboo Njaay ki nu yaakaaroon muy sunu sëriñ euh, sunu sunu référence Xaadim Bousso lu ko dal Idy moo fi ñeme jox xalifa général de Mouride ay kayitu foo Idriss moo fi jàll ba màkk kooku moom ay waxam bu wax su ma sañoon sax du ma tudd fii sama commune. Ah, mu mel ne yéen depuis Idriss Seck dugg diwaan bi nga xam mooy diwaanu ba léegi dafa mel ne daf leen a déranger ba yéen na ba fi ngeen yéen lu ko séenee ku leen tuddal a rey seen non non ku xamul yaa Idi ku ne xam na ne Idi yow euh, euh, gàccee dana ko am euh, vint 24 ci département Mbacké incha allah.